الرسول لنا بيرا بالجميل من ذكره واللقام حياة أحمد لا تتنا صرمدا ونبوة سبيل الهدى عن قطيها بالقلم ذكرا عليم هيون سيلا هدى لزيد تعمدني أكرم بذلك الكتاب في هداه والصواب فيه القطواب والجواب من ربنا ذي القدام هو الشفاء gaa ngi nii Gallas a ngi noonu borom màggal gi Jóoba Njaay bintu Juuf Aminta dem wax sama sëriñ gaa yaa ngi ci waañ wi ajaratu asu Njaay ci pomteer bi yaa ñangaan ki laax bisaab bi bàjjen yàq Diop mi ngi defar ba mu baax sama doomi sëriñ ñay màggal Bamba baaxu jotee ñay njëkk si noonu bi maam jaafuñ Cheikh Mourtala Sey bi Cheikh Ibrahima Khalil mi nuy jooy te noppee bu nu Mbàkke yal na yàlla dolli leeram daaf na ci barkeem te dolli ñu koo fayal lii lépp Mbàkke mooma lii yoon mooma ci teg moonu ko won ku ñime bernde ku mën a bernde ku bëgg jabar dolli leeram daaf ci dolli ñu ko fayal barke Seexuna Ahmadu Xaadim da njaboot gim fi bàyyi ci jiitu ak ka mujj gën a jamono yëpp yàlla na sa borom barkeel te teg leen ci yoonu siraatul mustaqiim ñu yeggale mbooloo baaxoon naa lool màggal gaa ngi noonu Cheikh Mourtala bu soxna Jaara Cheikh Abdoulaye ak Cheikh Ibrahima Khalil bu Cheikh Mouhamadou Fadal ak rakkam soxna Maria fi mu doon sëriñ ñooy màggal seen maam Cheikh Mouhamadou Fadal mi nga xamante ni képp kuy murit ameel nga ko bor sëriñ Fallou ñëpp ko amee njukkal ñi ngi laxasaayu ne ci waañ bis bi rekk leen ñor bis bi rekk leen saf kenn toogu góor toogu jigéen toogu ñëpp ngi ci waañu daal di baaxal rek ñun suñuy ndekkee njii añ yaa ngay gos reer yaa ngay gos Cheikh Moutala Beye daaw sama room ji ñu fayee maamam seey bi demoon gànnaar bi seey bi xorom naa mooy màggal màggal gi moom rakkam dal na dund ak jàmm kër gi yokk ba yëpp ko mbooleem lu seen waajur bu baax ba woon daan ferete mës ta wow mës ta jàmbat mës ta jànkat a teg ci wàllum fere sëriñ Xalil tegoo na loola ko ëpp lu am deeni addiyaa ci jekk am xolum joxe may yàlla temps ñu ngoo jaamu yàlla lool Mbàkke moom lañ ko xamleel mboolem ku ne ci wàññi ku mën a waat teraangaam amul fay ku ñëw ak ku ñëw sëñ Xalil ku mu séqal fay mu ni Mbàkke rek ameel na ameel na ko teraanga barke sëriñ Tuubaa ku ne ameel nga ko njukkalul yem doo koo ñaanal ci bis bi ñoo ngi ñaan nag suñu borom dëkkaale ko Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maamam ja nga xam ne lu liggéey jox na ko ak Seex Mamadu Faadal sëriñam njaboot yii mu fi yi nag yàlla def ci barke ak bërëkatu ba gis ci lu koy suñu jot mbooloo mi seen baay ba yenu woon ñu mën lu ko ëpp attan ko di ñaanal sunu sëriñ suñu sang ki nu ubbil bunt yi xàllam nu yoon muy soxna jaar Seex Abdu Xaadir ci lépp moom doy loonu ci lépp du jaar ci waañ wi du ñëw ci waañ wi du xool waañ wi du xoolum ndub du xool dara lu ñu ko defal ci waañ wi rek doy lu ñu ko defal doy Mbacke yal na yàlla guddal fanam te lim am ak sëriñ Xaliil sama borom teg ci loxo def ci barke ci barke Sëriñ Tuuba ñun daal sunu sàkk ci yoonu murit mooy kër Cheikh Ibrahima Xaliil mooy sunu sàkk mooy sunu kullu shaafin ilhaada fihi wa alam yajhida bi tawaatin la aqraada min rabbihi al-muntaqim فوز قيدا دع عدمتنا من لقامي وهو كتابه المبين جاء به ندب الأمين بإذن رب بعالمين هدى النحاء الأقوام وهو الذي من أطاع أن هو ما تدبر فيه عصى رب الورى ضحكة للوام وهو الذي من ثبت فيه ولم يلتفت دع من يكن فاته عند الشكر الأقوام وهو الذي من اكتفى بسوى ما قد كفى ولا يلاقي كفى ذوي الآداب الكرام أحمد نسي على كل كتاب بالوسيلة كالكعاد وبالفم أشكر ربي العظيم على كتاب الحكيم وفسر فيه بعلم تفهم ذات صرفه كتاب ربي الكتاب بنذير ذلك الكتاب